abonné leen ci chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin te activé cloche de notification bi ngir lu wàccati bees ngir man di ko jot ca tàng-tàng ba asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen balu xaq di leen baal di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu boole ñu baal di am mbégte di fas yéene ànd ak yéen ci benn secret bu nga xam ne day dimbale nit ki ba mu mucc ci pexey noon pexey noon noon yoo xam ne duñu may nit ki jàmm fu ñu toll ñu ngi koy jéem a liggéey fu ñu toll ñu ngi koy jéem a gàllankoor fu ñu toll ñu ngi koy jéem a yàqal ci anam yu bari te wuute su fekkee nag nit ki dafa bëgg mucc ci pexey noon yooyu ana fu mu koy jaare ci wàllu ñaan ci wàllu baatin mbokk yi loolu day tegtal bi baax na ci lool waaye bala may dugg ci tegtal bi damay fàttali ne ku ko bëgg a jëfandikoo bala muy soobu ci liggéey bi day fexe ba ànd ak laab fexe ba sell comme ni ma ko daan waxe bu yore toj mu ndaw mu dem jàppi bu yoree toj mu mag mu dem sangu ji farata yaramam sell yére yi muy sol sell laab bërëb bi muy toog sell ta laab bu ko defee mu daal di sooga dugg ci liggéey bi buy dugg ci liggéey bi nii la koy defee mbokk yi day ubbee audu billahi min alshaytaani rajim mu jël turu yàlla bii di yaa qaharu yaa qaharu yaa mu di ko wax di ko wax ba mu mat ñetti téeméeri yoon ak juróom benn ñetti téeméeri yoon ak juróom benn muy trois cent six fois trois cent six fois moom lay zikar yaa qaharu bu ñetti téeméeri yoon yi ak juróom-benn matee muy 306 fois yi mu tëjee allahumma salli ala sayidina muhammadin wasallim wala beneen siira bu mu man wala mu jubu ko ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi lii defe naa ne jafe wudde lu jàppandi la noonu la amee doole képp ku ko jëfandikoo nii daal incha allah yàlla dina ko musal ci pexey noon yi ku ñuy wax euh, Ahmad Zaruq al-Farisi Ahmad Zaruq al nitu yàlla la woon nee na bokk na ci jagle yi nga xam ne turu yàlla wii di qahaar am na ko bokk na ci njariñi turu yàlla wii di alqahaar day tàqale nit ki ak bëgg àdduna waaw ki nga xam ne dafa bëgg àdduna lool mën a topp ay bànneexam lool xam nga loolu mën naa indi topp seytaane mën naa indi itam nuur ci mooy yàlla baaxul kon ki bëgg àdduna lool bëgg yàlla tàqale koog bëgg àdduna yàlla dindi ci moom bëgg àdduna uh, nay jëfandikoo turi yàlla wii di qahaar waaw moom kay day tax nga woyafal àdduna di teewlu màggaayu Euh, yàlla maanaam dangay ngay woyefal àdduna màggal yàlla màggal yàlla waaye bëgg àdduna moom day dañ ci sa xol waaw waaye itam sa bakkan bi du ajooti ci bànneexi àdduna yi waaw kon turu yàlla wi di qaxaar lu ama am solo la kon képp kuy bari lu muy wax qaxaar rek même bu ko tënkul ci benn lim muy faral di wax yaa qaxaar yàlla dina génne ci xolam bëgg àdduna waaye yàlla dina ko dimbale ba xolam borom bi subhaanahu wa taala moo cay nekk bëgg àdduna nag tekkiwul ne mooy wut dépense wala kër gu baax wala oto bu baax nit mën naa kër gu baax wala oto bu baax di wut dépense te te taxul mu bëgg àdduna bëgg àdduna daal mooy nga jàpp ne dund gi ci àdduna la yem boo amee sa dund jag na waaye boo ñàkkee rek yàqule nga waaw waaye buñ ne dëddu àdduna tekkiwul sol ay sagar wala dëkk fu ñoxore wala seetaan sa bopp ci dund wala seetaan say jaboot nit dana wut kër gu baax oto bu baax di wuti dépense taxul mu bëgg àdduna ndax yooyu soxla yu mënta ñàkk la nag lu jar a xel la waaye bëgg àdduna mooy topp kër yu rafet yeeg oto yu rafet yeeg jigéen ak yu mel noonu ba amoo ci sago ba mu dox sa digg ak jaamu yàlla loolu ku ci bëgg a mucc laa wax del faral di tudd tur yàlla wii di ya yaa qaxaar waaye comme ni nga ko waxee woon kuy faral di tudd tur yàlla wii di yaa qaxaar say noon moom dañu sonn rek waaye duñ man ci yow dara mbokk yi kon dañuy taxawandi fii di leen ñaax ngeen abonné wu ci chaîne YouTube bii di yaatal xeltu yin di bàyyi xel waxtaan yi di commenter di aimer ndax fi la njëriñ yay gën yaatoo jaa ngeen jëf